ñetteelu xaaj bi ci ñetti xaaj yi ca ëllëg sa Pierre ak ay taalibe ànd ak ñetti gaaña ca suba sa ñu si Sesaare booba Corneille mu ngi leen doon xaar won na waa këram yépp ak xaritam yépp Pierre wax nit ña ne ab yawut warul dugg këru kudul yawut mu teg ci waaye yàlla won na ma ne waru mën a kenn setul mba araam na jëf ya saar fukk aaya ñaar fukk ak juróom-ñett korney wax pierre li mu gis ci peeñu mu wax pierre ne malaakami moo ko wax mu woolu ko mu ne ko léegi bëgg nañu dégg li la yàlla sant nga wax ko noonu pierre jël kàddu ga neleen ci dëgg gis naa ne yàlla du gënale waaye ci xeet yépp ku ko ragal tey def lu jub moom la nangu jëf ya saar fukk aaya fanweer ak ñeent ak aaya fanweer juróom gannaaw gi mu wax leen ci mbirum yéesu mu wax leen ne xam nañu naka la yéesu doon defee lu baax ak di faj nit ñi rey nañu yeesu ci bant ba waaye yàlla dekkal na ko moom ak yeneen ndaw yi seede nañu ko yéesu sant na leen ñu yëgle xabaar bu baax bi ci nit ñëpp yàlla jox na ko sañ-sañu atte ñëpp kuy dund ak ku dee képp ku gëm ci turu yéesu baalees na la say bàkkaar xel mu sell mi wàcc ci ñu doon déglu ñu tàmbali di wax ay làkk yu ñu déggul woon tey sant yàlla taalibe yi nekkoon ak Pierre daldi waaru ñi dul yawut jot nañu xel mu sell mi ni ay yawut loolu mooy li xewoon ci yawut yi ci bësu pantukat borom bi jox na ñi dul yawut te jëkk a gëm may googu ngir mu doon firnde ci Pierre ak ay àndandoom Pierre ak ay àndandoom mënatuñu woon am xel ñaar ne yàlla baal na ñooñu dul yawut te xarafuñu foofu lañ jëkk soobee ci ndox ci turu yéesu nit ñu dul yawut pierre toog fa ay fan di leen jàngal léegi ma laaj leen ñeent lu tax xel mu sell mi jox ñi dul yawut te gëm mayu wax yeneen làkk def na ko ngir Pierre xam ne yàlla baal na leen seeni bàkkaar te bokk nañu ci mbooloom ñi gëm. juróom ci seen xalaat ndax xel mu sell mi mu ngi wéy di jox may googu ñépp ñi gëm. ci saa si ñuy gëmee lañuy bokk ci mbooloom Christ xel mu sell mi dëkk ci nun fii lañuy yemale nettali bi